Euh, jërëjëf euh, euh, sëriñ Aboubacar jërëjëf kuréelu ku jaal xaq yëpp kii wax ak yéen nag seen mbokkum donc daara la tudd Ibrahima Faye di doom ni soxna Ndeye Penda Jaxate ak kuñ naan El Hadji Bilal Faye <coughs> sunu ñaari waajur yëpp bàyyi ko cay daara yàlla dogal ñu ñu jógee fi yóbbu yóbbu ñu daara daara suñu maxtaar jóg ci kër Mamour ci Cees a nekk yàlla dogal it fa la ñu nekk ni ko daara yëpp baaxoo di def xam ne la ñuy jàng foofu yëpp dañ koy mokkal ba ak gon sax ci téere yi nga xamante ni mooy téere yi ñu baaxoo jàng ay xadis rek im noansi yëpp niñ daan tare avant lañ ko daan taree eh, suñu borom ñu foofu it nag fa la ñu fa la ñu dañu fa la ñu jóge def candidat libre certificat candidat libre lañ ko defee woon yàlla defe ñu ci taw eh, ñu jógee fa it eh, eh, ñu jox ñu ku ñaan xaaji Ndiassé Mbaye rahmatullahi alayhi képp ku nekk ci Thiès xam nga kan mooy xaaji Ndiassé moom moom école boobu ñu naan ko Zayd ibn Sabit waaye nag di jàngalekat bu mag mooy ki Cheikh Ahmad Tidiane si mu Serigne Babacar daan fekk ci kër jëmb ñëpp yëpp mu doon mu fassir bu mag ñu daan koy invité ci mag réew yu yu bari alman waqtul arabi ci la bokk ci xam-xamam bu yaatu yàlla dogal na foofu la nekk jàng fa boole majlisam ba tafsiram ba ak daaraja ba am euh, brevet ak ah, sunu borom it euh, dogal ci sunu ndigali waaju ak sunu jàppalem ñu daal di dem ci al azhar fa la ñu nekkit ba am fa euh, baccalauréat waaye doyloowuñu foofu rek ci année boobu ci la ñu commencé ndax naka jekk suñu wàllu xare la ci amoon loolu ci ci at yàlla dogal ñu def ay ay formation informatique waaye doy luwuñu foofu yàlla dogal tamit euh, ñu continuer doon def ay boxoos ci ay euh, IFAN boobu professeur Samb moo ñu fa yore waaye doy luwuñu foofu yi nag suñu borom defal ñu taw fii xet ñu bokk ci ñu am bourse ndax yàlla dogal na am na bourse état Sénégal ñaari yoon yëpp it ngir ay gëstu la ak i jàng am na ci yoo xamante ni yàlla dogal na euh, ci jaamiatul azhar yàlla dogal na am nañ fi ay enseignements euh, approfondis yu supérieurs yoo xamante ni euh, bourse Sénégal moom ci dimbali ba ñu man ci accéder euh, li ñu naan ci wàllu loxa li ñu naan premier degré deuxième degré troisième degré nga xamante ni kilifa ga jiite woon loolu di sas bu mag ci wàllu loxa jaamiatul umul qura ak jaamiatul azhar la boola doon doon jàngale moo doon suivre ba nga xamante ni ci sax ibnu aqil ibnu malik Eh, ci la ñu def suñu troisième degré yooyu nga xamante ni eh, eh, ñu ci sant suñu borom waaye loolu wuñu foofu tamit ci wàllu formation approfondir bu duaat yi ak former imam yi nga xamante ni cheikhul azhar moo ko tiim ak jaamiatul azhar yëpp ñu nekk foofu ba yàlla dogal tamit ñu signé ñu fa ay lijaase yoo xamante ni moo ñuy permettre permettre ñu man di wax ci lislaam ak di jubbanti nit ci lislaam ci wàllu duaati ak ci wàllu aimma yi ci euh, alfiqul muqaran ala mazahibil arbaa euh, ak it euh, ci yàlla defal bi tawfiq fële ci al mamlakatul arabia saoudia amoon amoon nañ fa ay ay jamono yoo xamante ni lépp lu jëm ci wàllu mutawif ci wàllu tourisme islamique àndante kook suñu kilifa ya fa nekk xaaji baara fay wax dëgg yàlla ñu sant bu baax ñoo xam ne ñoo bokk lépp ci taxawaay yooyu nga xamante ni lépp lu jëm ci wàllu tourisme islamique foofu la ñuy defee pratique bi ak théorie bi ak kilifa yi fa nekkoon yëpp waaye doolu wuñu foofu tamit euh, dañooy ñëwaat fii ci réew mi nga xamante ni benn janax bu nekk ci ministre de l'enseignement supérieur mboolem lu jëm ci wàllu euh, informatique euh, maanaam def nañ ci lu mat juróom-ñeenti module ba àgg nañ sax ci def wàllu infographie photoshop ak illustrator def wàllu comptabilité def nañ ko def boo xamante ni ministre bi yore wàllu lépp lu jëm ci wàllu nouvelle technologie moo ko supérieur moo moo ko kii yoon foofa def nañ formation bañ jox ñu lijages yoo xamante ni lépp lu jëm ci wàllu comptabilité ak ci wàllu en informatique suñu borom def nañ ci tawfiix ba it ñu retour fii ñu ñu e, di jàngale ci enseignement supérieur bi foo demee ni e, université itocom euh, ci janax yëpp ak yeneen université privée yu nekk fii ci réew mi université yu bari dañuy invité ñu ne université bu Inde bi boole woon nañu sax ci deux cent trente savants yi nga xamante ni ñoom lay dalal ci depuis mille neuf cent euh, depuis quatre vingt quinze ah yàlla defal ñu tawfeex it ay kuréel yoo xamante ni ñi ko seq ñii ay juif lañu ñii ay chrétien lañu ay abbé maanaam ak i ak i pasteur janaax ba nga xamante ni moo jëm ci wàllu lislaam ñu doyloo woon na ci ba ba ba jox ma ko fële bànk Bangui nga xamante ni luñ ciy def ci wàllu lislaam dañ ci dañuy ñëwaat ci man ak it nag eh, ay ay ay responsabilités yu bari ñu jox ci réew mi rawatina ci eh, ci eh, administration bi fi demee ni fi ma nekk ci Thiès ci mairie bi bi ci conseil conseil kii bi ci comité scientifique bi ci comité conseil consultatif bi lépp lu jëm ci gouvernance man mii lañ ko dénk ak yu demee noonu yu bari yoo xam ne wax dëgg yàlla mën na si kulim waaye daal dong nga bi wax ak yéen loolu daal bokk na ci yenn ci jaar-jaaram <laughs> xam naa ne incha allah yi ci des na ko gën a leeral. bu dee koor gi nag ak corona bi fan yii yëpp ñu ngi ci nekk ci ay gëstu ak ay bind yu bari ak ay question yu jóge ci réew mi bitim réew suñu mbokki daal yi boo xam ne xóoti li ci charia wax bu boobaa charia lim ci wax yàlla dafa ne wala tulqu bi aydikum ila tahlukati bu leen yàpp seen loxo ci lu leen di alal te waxule xal insaanu daifa daal dafa bind doomu adama mu ñëw doole te yàlla neen laa yukallifu allahu nafsan illa wasaha laha ma kasabat wa alayha ma kasabat yàlla tegu kenn lu la nga man yàlla yàlla kenn la nga xam yonent bi wax na ko eh, eh, eh, Tirmisi yi génne na ko nee na bu leen exposé seen bopp nit du tay la boppam bu koor yii dee ñëw nga xam ne des na lu mat ñetti semaine bu fekkente ni docteur yi nee lii ma lay lu ma dind la buy jub jibbal ko borom xam-xam yi gën a mag ginnaaw bi question bi ñëwee ci man fan yëpp léegi ma ni leen ñu ngi def mooy ndax danañu woor wala duñu woor bu booba xam-xam day daal di hmm, dafa faratal woor waaye wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun fa iddatun yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al kon loolu leer na kon dellu ci suuratu Baqara rek nee na képp ku ku feebar wóor sa diku na la ba keroog ngay wér tukki tukki bu sori wala bu metti fan ya ngay tukki dogal ndax yàlla daa bëgg ci yéen lu jàppandi waaye bëggul ci yéen lu jafe ñaan ginnaaw yàlla ko bëgg ci ñun mais duñ ko teg suñu bopp lu jàppandi bu docteur yi ne corona bi ak koor yi ndax ki mu dal ki mu dal duñ ko duñ ko mën a xam te foog ngeen di naan par deux heures temps wala lu tàng di naan lu bari parce que nee na ci góor su lay teg loolu bu bu boobaa di docteur leen ciy déglu yi maandu nag ñoom bu ñu bokkee ni koor gii di ñëw ak ndax ñi mu dal ak ñu mu xamuñu leen te corona liggéey bi muy def mooy ci góor lay toog lay tag te nit bu dee faral di naan lu tàng wala muy naan naan bu jege te bari bu ca tegee tamit day àgg ci biir ndax dëgër bi am ci biir bu ci jàngoor ji àggee àggee da koy lakk buñ ko bindee te yaxal ko buñ ñëwee ci xam-xami boroom xam yi diine yi bu boobaa dañ daal di indi loolu suñu borom subhanahu wa taala wax ni yaa ayyuha alladina amanu xu waxirakum yéen ñi gëm ngeen mu jël leen seen i devant ak seen i garde mooy dañuy dog ba corona bi teggi doo ko fay kon ma la koor gi mm-hmm. am na nu muy demee par exemple bu docteur yi ne lii ma mën a ànd koor kon ñun amuñ droit woor ci weeru koor ab jullit amu ci droit ab jullit bi dund ak diineen nag amu ci waxuma koy talax talax rek nag kuy dund ak diineen amu ci droit bu docteur yi waxee ni bind mu leer waaw xam-xam démontré loola parce que dana dal nit fukki fan juróom loola war a ñuy quarante nit ñi di léegi nag mën na laa dal te li mu gën a bañ nee nañu mooy ñàkk naan tàng ak ñàkk naan parce que ci góor lay def pour multiplier wu bu docteur yi ne ah yaxal ni kat koor gii dëppuwut ak feebar bii mu leer dañ ko daal di yóbbu ci borom xam-xame diine yi sharia lu muy atte mooy day fekk si docteur ya mooy koor gi dañ koy dañ koy fay bu corona bi tegge ko waaye ñu ngi ñaan nag balaa koor ga yàlla ko yàlla tegg inna allaha ala kulli shayin qadir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki waqul jaa alxaq wa zahaqa albaatil maa ngi nuyu di ziyaara ñëpp sëriñ Babacar Diallo ñu ngi lay ziyaara di ziyaara sa gan bi sëriñ Ibrahima Faye waaw macha allah man maa ngi door a topp waxtaan wi audio bu njëkk bi laa déglu bëggoon nag sëñ Ibrahima Faye nga dolli ñu ay leeral ndax ku ne xam na ne dañoo toll ci jamono ju doy waar rawat na sunu réew mii di Sénégal dañoo toll ci guddi yu lëndëm moo tax fan yi yaakaar naa ne ñu bari gis nañ ñii sol mbubu gendarmerie ñii sol mbubu police ñii sol mbubu armée te doonuñu dara ca loola comme niñ gisee kuy sol mbubu docteur ba di toog ci ay plateau di présenté wu ci pour yoo xam ne ak wàccuwaay yoo xam ne daal sa dëgg-dëgg ndekete yoo doonut ca dara te loolu nag lu yaatu la lu bari la ci réew mi léegi moo tax taxoon rek ñu bëgg a yokk leerlu al azhar bi ci Thiès bu fekkee foofu nga amee bac nga baaxee ñu ban at la at moo fa amee bac ndax ñu comme archives yi alhamdulilah lépp jàppandi na ñu xam at moomu tur ya fa feeñ ne jëlee nañ fa bag ginnaaw loolu euh, al azhar gële ca Égypte ak jaaruwaay bi diplôme yi nga fa génne yépp daal bu ci ne xamoon at euh, at man la rek man at nga fa jëlee diplôme boobu waaw ci kàttanu yàlla danañ mën a gëstu ba gën a yokk wérlu daal comme ni ñu ko alquran sante tabayun ba gën a am lu leer ndax jamono jii fii laa jaar diplôme bii laa am dafa dul doyati ngir lii xew ñëpp di ci teg bët rawatina nag bu dee kay wax loola mi ngi wax ci xam-xam buñ déggee kàddoo muy niveau boo xam ne daal dëgg-dëgg sore na lool lool ak diplôme yenn yi euh, nga yokk ñu ay leeral daal ci ci ci diplôme yooyu nga xam ne jëlee nga ko ci jaaruwaay yooyu bu ci ne ci man at la ba mu gën a leer daal nga xam ne ku ko bëgg a gëstu rek mën a dellu ci archive xool ba am nu mu fa demee waaw ba tey Serigne Ibrahima Faye balaa ñuy ñëw ci ay taaliqaat ci waxtaan wi ñu ngi xaar leeral yooyu di gën a leerlu rek euh, rawat na foofa ca al azharu sharif ca Égypte diplôme ya nga fa jëlee euh, shahadaat yu kawe yooyu ak autroxaat ya nga fa bind xanaa wiin yi maanaam autrox boo fa def rek baxsu ba baxsu jaamia ni boo fa def rek euh, unwaanu risaala ba bëgg nañ koo xam di laajaale it naka nga def ak euh, rabita bi nga xam ne moo takk ñi génnee ci école bu mag boobu di ay doomu Sénégal nga xam ne yàlla dogal na ñu bokk jàngee ci école bu mag boobu sàkkukaayu xam-xam bu siiw boobu doonte bokkuñ benn jamono buñ fa jàngee waaye woo nañ daal xam sénégalais yi fa génne ak seeni taqasusaat ak euh, tees yañ fa def yépp daal bu ci ne mawdoo ba am nañ ko def naka nga def ak mbooloo moom leeral yooyu daal ñu ngi koy xaar balaa ñuy ñëw ci waxtaan wi incha allah rahmatullah maa ngi wax gaal ngi nuyu waa groupe yëpp xam naa euh, débat waxtaan bi nga xam seen baabu ko jàlloo dafa na ko démb rek bu jël si mbokk mi léegi doon Cheikh Ibrahima Faye macha allah topp nañ ko sànq ba jeex ndax boole bi lañ toppoon sànq lañ ko doo ko jeexal waxtaan bi am na solo lool am na solo lool xam naa bëggoon na laaj rek am ay laaj yu ñu ko may jégal si mbokk mi rek si waxtaan bi am solo bi nga xam ne ëñ na ko fi incha allah maa si bi nekk rek euh, bu nekk mu ngi groupe bi nekk mu ngi dégg rek laaj bi nekk mooy xadis bi nga wax na ko mu nekk xadis bi yéen sallallahu alayhi wa sallam wax ne euh, bi ak nodd na ngeen dem yuy ji fii amul leen ngant ngant bi nag ngeen di ragal ngeen ragal ku leen alal wala ku leen agressé yi demee noonu wala beneen soit ngeen feebar nga xam da ngaa ragal feebar léegi ko damaa dégg mu firi hadis feebar mooy nga dem jëlee feebar ragal boo ko dee jëlee feebar léegi moo laaj hadis boobu ndax noonu la ko xam-xam yi firee déggee boobu moo laaj mooy comme ragal feebar est-ce que namuñ na si ne yow mi nga xam ne da ngaa feebar am nga ngaan ku dem julli ji mbooloo ma yow mi nga xam feebar yow mu feebar am nga ngaan waaye ki nga xam ne feebaru nag ragal ragal jëlewu feebar rek est ce que noonu lañ koy noonu lañ koy firee te moom sama jub noonu la ko firee bu nekkee da ngaa ragal ne yow feebar dara jotul la waaye jëlee feebar man ngaa toog euh, ba tamit ci wàllu tëj jumaa yi ak jàkk yi la Sadio est ce que gis est ce que nekku ne bi ñu organisé woon maanaam mooy ñu organisé ndax boo xoolee daa bi mbiru at yi rek ñu ngi koy organisé ba kay doxal ah ñi ñaa ngi liggéey ci marché yi oto yaa ngi daw ñëpp ngay kii split jimaay ba ñu ko organisé ba nga xam ne imaam bi dana nodd waaye nag imaam bi ak ñi nga xam ne ñoo ko jege moo xam ñett ñu ngi la wala ñeent fukk wala fukk ñu organisé ko waaw ñu organisé nga xam ne daal dañ mën a julli julli mbooloo moo xam ci liggéey ñaar fa nekk wala ñu soit ñu def espace kenn ku ne am noo taxawee maa xam ne kenn jege sa morom wala soit yi balaa nga dugg ba raxasu ah ñu xool sa yaram comme ni nga xam ne booy dugg ci yenn barab yi àdduna yu bëri yaa ngi est-ce que gouvernement warutoo jël almatuwaay jox imaam yi jàkk yi tamit ñi nga xam ne dañ koy yor képp ñu xool sa yaram tàngaay fu mu toll maa nga xam ne dañ fa mën a jullee soit bañ kaa tëj kooku mooy suñ premier laaj aussi tamit ñaareel laaj bi ñaareel laaj bi ne noonu mu yëpp dëppoo ne buñu woor am bi dëpp toog xoor weer koor kon bu baax dina war a topp matin yi si ñàkk xoor weer koor comme na ko waxee faltan lu ahli sitri in kuntum laa ci laaj wàllu médecin yi waaw comme na ko waxee waa léegi nag est-ce que ñi nga xam ne ñooy corona ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom la nekk ñoom ñoom lañu def kaara kaara ak antenne waaw ni ñu koy waxee ci en français loolu waaw yàlla noonu la daal ñi nga xam ne daal ñoo leen gardé di leen xool boo xam ne yor nañ corona wala ñoom moom nañ leen bu ñu war moom mën nañ ko dégg xam ne ñu ngi ci mbedd di dox di dox seen soxla comme Sénégal yëpp gaa yi ñi ngi ah, moom est ce que bu médecin bu ñu war la est bu ñëw bu ñëw bu ñu war est ce que war nañ nañaa koor maa lu ma bëgg a mooy bi ne bu ñu war day fekk xam ne dañ leen garde di leen xool ba xam ñoom yor nañ corona wala yéen corona ak ko yor ñu ne bu ñu war moom mën nañaa koor waaye sama sar gi nga xam ne ñu ne mbedd di dox seen soxla ak ñeneen ñi leen est-ce que ñoom médecin am nañ droit ne leen bu leen woor ñaari laaj nañ amoon daal liñ ci laaj jërëjëf. asalaamaaleykum wa waaw mbokk yi mel na mbokk mi daa génn groupe bi de damaa xamul ngànt la wala lu xew waaye amoon nañ yéene lool mu toog tontu ci lii ñu koy laaj balaa ñuy ñëw ci lubbu waxtaan wi daal mu leerlal ñu moom mooy kan euh, laaj yi nag yónnee naa ko ci privé incha allah mën naa mu tontu ci bu ci tontuwul du tey ñun danañ ñëw liñ bëgg a leeral ñu leeral ko ndax wax dëgg yàlla euh, doon de xamuñu ko woon nag ngóor si man maa ngi door a gis jëmmam ci bi muy wax ne euh, weeru koor wi nangam nangam ak corona bi waaye comme Sénégal day réew mu ndaw daanaka ñu bare bare xamante xam démb yi ak tey wax dëgg yàlla am na lu ñu xam ci moom lii ñu koy laaj daal bu ci tontee alhamdulilahi rabbil alamin bu ci indee ay firnde bu ko defulit nun danañ ki leeral li ñu xam waaw kay salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Souleymane Badiane ñoo ngi lay ñu di la ziyaar bu baax a baax di nuyu waa waxul jaa alxaqu yëpp wa zahaqal batil ñoo ngi lay bu baax a baax ci waxtaan wi am na solo di jaajëfal tamit eh, Serigne eh, Babacar eh, Diallo Cheikh Aboubacrin ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci yitte yi am na solo di jaajëfal mbokkam moom mu dalaloon fi muy Oustaz Faye ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax Ibrahima ñoo ngi koy jaajëfal bu baax macha allah am na solo di jaajëfal waa kër gi yëpp rek waaw Cheikh Souleymane waaw yow de laaj yi dafa mel ni dafa da nga ñëw rek mu diis lool. doy na waar waaye nag eh, noonu la nit moom bu déggee loo xamante ne si jaadu na pour mu leeral ko war na ñëw eh, dal ci waaye da nga waroon commencé ci yu gën a woyof bu ko defee nga nga nga nga mën ko kii nga mën ko fexe mu tontu la waaye yi nga commencé dafa diis lool xam naa ne daal eh, waxtaanu nag abu Aboubacrin mu jëliwaat ko indi ko dana ci baax ndax te ñun ñi am na information yi ñu ci jot ci jëmmam ji te daal xam naa ne ci moom rek lay gën a mën a leeree donte nag mën nañ doyloo source yañ ci jëlee waaye xam naa ne ci moom daal doon na gën a mën a leeree ba xam moom lan lay saxal ak lan lay dajji macha allah am na solo ni nga defit moom am na solo lool lool lool lool lool dëkk bi dafa yaatuwul adduna bi sax dafa yaatuwul waxuma nag Sénégal kon daal lépp luy waaye di wax rek war na ko teg ci ay source yoo xamante ne si dana neex a tege daal mhm. kon daal bu ko defee Cheikh Aboubacar xam naa ne war nga waxtaan ak moom mu jëliwaat ko ne daal dafa am yenn laaj yu mujj rek yoo xamante ne si mbokk yi bëggoon nañ ko waxtaanee ak yow bu nangoo mu ñëwaat dana ci am solo lool dana gindi nit ñi ndax information yooyu nga am am na yeneen yu yeneen mbokk am tamit xam naa ne doon na mën a leeree ci moom bu fi nekkoon doon na gën a mën a leeree waaw doon na gën a mën a leer daal ba xam moom lan la ciy tontu waaye daal yàlla na yàlla dimbali ñëpp rek yàlla yàlla dimbali ñëpp yàlla na yàlla dimbali ñëpp ba dimbali ñu ñuy eh, doy na waar daal doy na waar wax dëgg yàlla yokk ay mbir moom dafa doy waar lool lool lool lool lool. Hmm. na yàlla dimbali ñu yal na yàlla dimbali ñu ñu ñu ngi leen di ziare ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waxul jaal leen nuyu di leen jaar baax di baal xaq di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu boole nu baal waaw macha allah di ziare suñu Babacar ak mbokkam mi ma dalaloon démb Ibrahima Faye am na solo lool yaakaar naa dafa génn daara ji waaye moo sañoon mu toog man euh, machine Serigne Lamine Sall yi ma doon màbbalee euh, macha allah téere boobu noonu di wax si diggante xabd ak sadlu machine yooyu laa bëggoon a àbb ñëw màbbu muram bi nga xam ne amul cosaan li tax may amul cosaan aaya yi nga xamee ni moom la koy teg yëpp aaya yu àttunu sama bi salaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñu ngi siyaare bu baax sëñ Babacar Diallo ak ganam gi di sëñ Ibrahima fay di ngi leen di bu baax a baax a baax déglu nañu waxtaan waaye xam naa masala bi moom maa ngi ñaan mbokk yi ustaas yi rek bu ci kenn juum kenn waxal waxal waxal maanaam médecin yi lu ñu waxut médecin yi waxuñu fi dara médecin yi daal masala bi daal sëriñ bii dong dong dong moom képp mu wax masala bi man daal daa bëggoon ngeen di masala bi masala fa yéen waaye boo nag ustaas daal laa bëgg ngeen di ko masala bii mu commencé sëñ bii yam ci moom dong wax dëgg yàlla daal dama jàpp ne masala boo xam ne sëñ bi moo ko moo ko yàq ngir bëgg cee bé Abib Ndiaye rek sëñ ma fari Ndiaye waaye dib jullit di mu kàllaf weer wi feeñ ngay damay xaar rapportu médecin doo ko um damay xaar médecin génn seen rapport mu doo ko um loolu moom sarti koor mu ënd ci beneen sart bes taq taq-taq boo xam ne moom dong nag moo ko waxagul nag médecins yi la ñuy déglu maanaam sart yëpp daje ci ñun waaye nag mu des benn ban la médecins yi la ñuy déglu est-ce que waaw asalaamaaleykum waa majmuwa waqul jaal xaq ñu leen mbokk bi mooy Cheikh Ibrahima Faye bi nga xam moom la si Aboubacar Diallo dalaloon mu nekk jàmbaar bu nga xam ne yàgg ñu ko suivre si télévision yi euh, surtout màggali bi wàcc mu ci def ay euh, ay taalixaat yu yu yu intéressant euh, mais cette fois ci moom euh, ci li muy expliqué ni moom dama ci àndut ak moom parce que ay yi mu indi nii ak nu mu ko tegee par rapport ak docteur yi pour man dafa bokkul xam nga bu yàlla waxee man kaana maridan aw ala safar la wax day fekk nga feebar wala parce que loolu dafa nekk lu nga xam ne yaa ngi koy dund instant da nga feebar ba yëg ne yow amatoo kàttan pour woor wala nga nekk si voyage bu nga xam ne peut-être coono yu nga nar daj ci yoon bi ñu teggil la ko pour yeneen yi bis nga mën ko defaat mais bii bokkul dafa am feebar bu am ñu ne médecin yi ne ñoom euh, nit yi dañu war di naan chaque instant mu ngi mel ni comme léegi koor gi nekk si benn mois bu nga xam ne dafa tàng boo seetloo bu baax médecin yi tàmm wax ne jullit yi euh, yéen ñii di woor euh, tàng na tàngaay bu nga xam ne parfois da ngeen di ñàkk lu bari léegi nag pour mën si génn moom il di naan lu bari mais naan lu bari boobu du tax. lu tax ñun ñu bañ a woor dañuy woor mais dañ la wax ne comme booy xëdd nga naan ndox bu bari rek mais comme ñoom instant bi médecin dañ ne euh, feebar bi xew nii ni da nga war a pour mën pour mën a aar sa mooy da ngay naan chaque instant di naan pour sa pour war di wow mais loolu ça ne veut pas dire que waroo waroo woor <laughs> waroo woor parce que yaa ngi nekk yaa ngi nekk ku nga xam ne euh, yëgoo sa yaram benn feebar bien important mais comme ni médecin dañ joxe temps yi nga xam ne temps tàngaay la ñu ne dañ naan lu bari ah surtout booy xëdd ak ak aussi boo ndogoo yow aussi jàppal ne aussi yaram booy xëdd jàppal comme noonu rek comme ñoom nee na ñi bañ sa pour di wow booy xëdd nga naan ndox bu bëri boo ndogoo aussi nga naan ndox bu bëri pour man loolu mais euh, aaya bi nga xam ne day day day day day day day teggal nit ki woor ci ci euh, mois woor daa fekk yow nga day fekk yow nga feebar mari dana aw ala safar la wax day fekk nga feebar mais comme yow yëgoo sa yaram benn mettit benn lu nga xam ne mooy tax munoo woor gisuma lan mooy tere woor ku nga xam ne mu yëgul si yaramam benn mettit pour pour mën a bañ a woor di ko di ko wax ne am na benn benn feebar bu am rek feebar boobu pour moytu ko bañ a woor loolu daal dafa nekk lu nga xam ne fondement am daal dafa dëgërul waaw fondement am dëgërul. salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Babacar. ñoo baax a baax a baax. Cheikh Babacar. am na solo lool. comme ni nga ko waxee rek fi nga aaya bi fa leer naa yàlla dafa wax ne. faman kaana minkum maridan ku nekk fi yéen di feebar wala mu nekk fi ab tukki mën naa dog yàlla moom li mu wax ku feebar la wax waaye yow nag boo ñëwee bëgg jël ab àtte bu bokkut li yàlla wax yenn ko ci li yàlla wax yaa ngi def taxriiful kalim yàlla fa man kaana la wax ku nekk di feebar waxul fa man wan ku njort waxu ko waxul fa man sàq kii sik sàq yàlla waxul loolu yàlla waxul wa man waxima ki kii wax defe naa yàlla waxul loolu ku feebar sa feebar boobu sax day fekk ne fi yow mënoo ko booleet koor waaye yow feebaroo defoo dara di lekk ba suur di naan ba mandi di dem sa marché ya amul benn njeexantalu feebar bu feeñ sa yaram ñu ni na mu ñu ni te docteur nee na nga dox war a dox waaye taxaw fee ni dagan ndax yàlla moo wax loolu fa man kaana minkum maridan loolu taxriful kalimi la kalimi la soppi baat soppi maana wala bëgg ab àtte ab dara amoo cosaan nga fekk miir boo xam si nii macha allah miir jàmbur jàmbur la nga àbb ko ndax ñépp xam na ni aaya bii ak masalaam bii mi wax danoo wuute comme yàlla ak yaali bokkuñu sax bokkunu sax sa laaj ngeen ko ay laaj ci biir sëñ Babacar lan mooy taawilu xarib ak taawilu baid yaakaar naa loolu bu su ñëwoon rek wax ji dafay leer waaye maa ngi koy topp yaakaar naa bi waaye bi ko sëñ Babacar a ñëw si ay leer ndax taawilu xarib ak taawilu baid loolu mooy li nga xamee ni bi waaye ñëw si lu tax taawilu xarib ak taawilu baid ñëw si ndax dañoo jàng ci nit bu demoon ci docteur ñu ne ko da gis mbërëg tey mu xëy di lekk wa naan day fay kafaara donte gis na mbërëg ndax saawilu baaxit la def ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye nag macha allah yàlla nu yàlla jéggal sa yërëm bi ci defit mooy oustaz euh, boobu ñu dalaloon moo di oustaz Ibrahima Faye Euh, tam doon def waxtaan wi ñu ngi ko doon topp wax dëgg yàlla amoon ci nag ay gis-gis yu bare bari waaye euh, yàlla dogal mu mel ne dafa xaw a rocceeku waaye daal ak ku mën a doon ndax man euh, wax dëgg yàlla mbir mi dama ci xaw a taq ndax lu jiitu ñu koy woo Aboubacar Diallo na nga koy nuyu man man mii la woo laaj ma numéro ma jox ko ko yàlla dogalit yàgg naa ko invité ci télé bi euh, miraaran waaye dafa am yoo xam ni man xëy na jaaruma ci woon ci ak moom ci ak lum jutu ak yu demee noonu dama jàpp ustaas la ustaas la rek ñu def ko loolu waaye lii Souleymane bajaan posé muy ay asila yu ama ama am solo dañ ko war a bàyyi xel xaw ma nag lu ci euh, euh, Souleymane Badiane jublu waaye ragal naa ne boo demee da ko xam-xam guñ ko xamul waaw ndax ni ma déggee laaju Souleymane Badiane yi te gisaguma ci tontu daa mel ne Souleymane Badiane <laughs> daa mel ne da cee xam luñ ci xamul daal ci ci ci ku yàgg a déglu ay laaj ak yooyu wóoruma nag loolu nag sama gis-gis la rek dafa mel ne daal dafa am moom ñu ci xam loo xam ne ñun xamuñu ko ndax nit moom mën nga koy dalal te doo xam ay jaar-jaaram da ngay ñëw rek ci télé bi dalal ko et cetera donc loolu moom am na mu daan waxtaan nag ci fànn yu bare bari ci màggal yeeg gàmm yeeg yu demee noonu waaye dafa dafa dul rafet dafa dul jekk itam eh, nit ñëw di wax ne am naa lijaasa sangam lijaasa sangam jaar naa école sangam te te te demewul noonu bu ñu demee nag moo gën waaye bu dee demewu ñu woon moom loolu moom wax dëgg yàlla ci jekkul dara ndax mën naa indi erreur te li Souleymane Badiane wax it ànd nañ ceeg moom ci li mu wax ne eh, maanaam léegi réew mi dafa tuuti te léeg-léeg nga gis ku ne la médecin la am na kon ci jàpp barki démb te du médecin ku ne la soldat laa te du soldat douane laa te du douane maanaam du douanier maanaam yooyu yëpp usurpation lañ ko tuddee ci tubaab usurpation de fonction te loolu sax mën nañ cee tëj mën nañ cee tëj kaso nit loolu loolu buñ ko toppee mën nañ cee tëj kaso nit bu dee demee demee na noonu loolu nag kon ñu doon bëgg bu fekkente ne dégg na laaj yi moom mu ñëw leeral leeral leeral leeral ko ndax moo gën su ko defee group bi yëpp mën a firé maa ngi fàttaliku euh, bu ñu nekkee ci daaru ji ca école bële ca Louga bu ñu tuddee Manaarul Huda yu mel noonu dañ ko fa daan faral di laaj boo ñëwee ñu ne la foo jaar bala ngaa bala ngaa dugg ci école bi sax ndax jot ngaa jàng alxuraan ndax nangam nangam nangam soo demee it ba war faa génne itam bu la ca kenn rombé ca boo ne Manaar laa génne fokk ñu laaj la ne la ndax am nga fa nangam am nga fa nangam waaye boo nee boo ne am naa BFEM mu arab te amoo certificat arab loolu moom amul solo. wala nga ne am naa BFEM français te amoo certificat français wala nga ne am naa baccalauréat ci français te amoo amoo BFEM ci français loolu daal wax dëgg yàlla wóoruma nag mais bu fekkente ne yu mel noon day am dafa dafay jaadu ñu ñu war koo leeral. nit ki moom boo ko xamul xamoo ko waaye daal boo ñëwee ne diplôme sangam am naa ko bu fekkente ne diplôme bi jegewula ba mën a indi sirleet man ngaa wax ne jàngoon naa diw waaw nga ne jàngoon naa loolu. Euh, doon na rafet lool mu tontu ci ñëw laajaat ñi ndax gannaaw man laaj laajoon numéro bi ba ma joxe ko ba mu tàbbi sama yoon nag nekku ci waaye damaa dégg Souleymane Badiane laaj laaj yu am solo yoo xam ni nag kun ko laaj boo dee nit war ngaa ñëw tontu fa tabaarakallah bi ci des nag mooy euh, usurpation de fonction yooyu le euh, boo ko defee la la ca mën a fekk loi bi am na lu mu ci tëral jamono dana ñëw ñu dikkaat ci waaye boo duggee ci groupe ak koo mën a doon ah muy man muy keneen ku mën a doon ban la invité ci groupe rek boo waxee ba pare bu dangaa war a am gentillesse ak discipline nga toog ñu poser la ay question nga tontu hmm, tontu moom mën naa mu naqari mën naa mu neex mais nga nga wax li ngay wax rek du sukkurité yóbbu say wóom euh, waaye daal lu ci mën a am euh, question yi nga xamee ne Souleymane Badiane euh, laaj na ko ko wax dëgg yàlla doon lañ ko ñaan mu ñëw leeral ko lool ndax daf cay baax lool itam mais jusqu'à preuve di contraire daal ragal naa ne Souleymane Badiane laaju laaju donga daaraam yi damaa ragal ne daal da cee da cee am lu mu gi ba noppi door a laaj li may faral di wax ne léeg-léeg <laughs> man mii daf may dal léeg-léeg ma ne danaa joxe xabaar ci group bi wala ma wax benn mawdu ci groupe bi fekk la ma jot gi moo ëpp doole moo ba gën a bari sax la ma la ma génnee waaye lu ci mën a am rek euh, yal na yàlla defal ñépp jàmm te kuy wax rek nga nangoo laaj la di wax Égypte sax maa ngi wax fan démb rek maa ngi wax ne war nañoo ñëwaat ci histoire am ñëwaat ci yonent yi fa jaar ñëwaat ci les prophètes israélites yi nga xamee ne eh, ay israël yoon lañ li mën na leen a duppee noonu te yàlla yónni ci ñu bëree bari ñenn ñi am na ci ñu wax am na ci ñoo xam ne jotuñoo wax wax ju bari waaye woo nañ ay nit am na ci ñu dëkkoon Égypte am na ci ñu denc ñu ñu denc eh, fële ci Palestine ndax yonent yàlla ibrahim eh, bàmmeelam ci gox yooyu la nekk waaw gis nga eh, ñoom Shuayb yi demoon nañ ba Turquie waaw alayhi salaam eh, Moussa digganteem ak Firawna histoire bu doy waar la donte alxuraan ñëw na ci mais gis nga ba ak ni ko Gassama doon waxee démb rawxaan alxuraan tudd na ko waaye dañ cee dañ famille boobu daf cee daf ci daf ci xóotul lool trop trop xëy nag alxuraan noonu lay demee léeg mu tudd ab yonent waaye du ci du ci du ay coow yu mel ne ñoom Idrissa ak yi demee noonu yëpp jamono dana ñëw daal ñu waxtaan ci ak famille boobu boobule nga xam ne moo di ci boppam la ñu war a gën a njëkk a jaar jaar ci soxna Mariama ak lu jiitu yonent yàlla Insa di juddu foofu yëpp ay xam-xam a ngi fi yu ne gadd gaddaaral yoo xam ne wareef na ko mën a waxtaane xam naa du ñàkk jamono ñëw ñu ñu ko rek waaw ci xam-xam fa tabaarakallaahu téere yi liñ ci bind euh, ak téere yu jëkk yow ak sax ba sax ba ci sax suñ époque yi nga xam ne boobaak léegi xëy na yàgg na yàggul bu bare ba bari xëy na ay quatre cent lay war a toll am na ñu ci bindaat te booba alxuraan a ngi fi yàlla yàlla defal ñu sutura ñu ngi jéggalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah yaa Cheikh Modou Faye ñu ngi lay ziar waaw comme ni nga ko waxee rek mais man sax man maa man maa wax. Euh, Euh, Cheikh Aboubacar Diallo na ko euh, kii daanaa ko gis Cheikh Maodo Faye di ko dalal Oustaz Maodo Faye di ko dalal si plateau yi surtout nag euh, bu fekkee màggal day wàjj ñëw waaw daana si def ay waxtaan yi am solo ba nga xam ne man lu ma doon apprécier la parce que moom dama doon gis ne yu bëri lu gars yi doon wax si yoon di ko di ko taxal yoon bi di koy def affaire yombal yooyu ak yenn caaxaan yi moom da si doon dal bu baax bi wan na loolu yëpp di indi ay ay mbindu mbindu sëriñ bi yu leer di si wax man ku ma naw la si côté boo wax dëgg fa yàlla waaw mais aussi euh, question yi kii posé ko euh, Cheikh Souleymane Badiane xam naa daal suñ ko mënoon dugalaat mu leeral ko parce que tamit jamono ji tamit dëgg la gars yi moom parfois suñ la bëggee wàññi da lay wax na ay azhar laa génnee wala am na diplôme nangam am naa diplôme nangam pour wàññi parfois ñu wàññee ay nit waaw mais tamit c'est important aussi euh, comme nu kii defoon fii rek am na ku ñu mel noo xam dugaloon fi benn benn benn saxaadam fii si euh, si si groupe bi pour man loolu moo ma nekk ay preuve yi nga xam ne sax ay preuve palpable palpable quoi parce que Sénégal toll nañ fi nga xam ne nit mën na wax am naa lii am naa lii sa fekk sax loolu da ko def pour euh, pour benn instance waxtu si diine ñu ne ah kii am na habilité wax si diine parce que am na tel diplôme waaw wala am na doctorat nangam ta doctorat boo xam doo ko mos a gis da nga koy dégg rek moo tax yéeme na daal. salaamaaleykum wa rahmatullah wa képp daal maa ngi leen di ziare baax a baax a baax di ziare Cheikh Ibrahima Faye mi Oustaz Babacar Diallo daloon démb maa ngi ziare kilifa yëpp macha allah waxtaan wi am na solo waxtaanu borom xam-xam la euh, li ci nekk kay mooy. Euh, li mu wax moom dañ ci ànd ak moom mi abin mi nag amu ci benn benn côté boo xam ne ànd nañ ci ak moom benn benn côté nag laa wax parce que li mu wax euh, man damaa xamul lu ko wax loo waaye li ko wax loo moom xam naa ne moom bokkul di défendre charia moom bu da ngay défendre charia euh, mbir yi kilifa yi teg yëpp pour sakk diine ji yow nga dajji miir yi kon yow moom sadd véréant boobu ñu doon bañal ñenn ñi sax ci madaahi bi doon ko bañ yow yaa ngi koy yombalal nit ñi te fatwa yi demee nii ñoom ñooy yonjoxloo nit ñi ñoom ñooy yambarloo nit ñi euh, euh, jigéenu wérul jigéen boo xam ne par exemple sax euh, dafay dafa ne suba laay gis mbaax warul aj ci gis mbaaxam warul ci aj ñàkk kooram ba fas yéenewul woor ça veut dire que mu ne du ma woor tey du ma woor suba ñu ne ko lu tax mu ne parce que suba damay gis mbaax xam nga loolu ñëpp xam nañ ne dëgg la waaye la ma ko woon na suba dina gis mbaax bu subaa bu gisul mbaax nag imaam Malik bu dee ci ngir imaam Malik dañ ne kooku dafay fay ba pare dafay kafaara euh, boo xoolee euh, mbokk mi waxuma la sax aay yi nga xam ne mi ngi koy indi fii xëy ma waa waxuma sax loolu jël aay di ko dugal fële jël aay wooy nanga ak nangam moom man wa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun wa man kaana minkum maridan loolu suñu borom wax lu leer borom xanaa da nga kaa dégg arab est-ce que dafa wax foofu wa man xaafa min al maradi mu waxee fële man xaafa min mawsin janafan aw iradan ah est-ce borom xam-xam yenn ci borom xam-xam yëpp waxuma la sax mais borom xam-xam yëpp kan moo ci wax ne la ah boo ragalee ne am na benn feebar bu nekk dëkk bi kon ko que feebar bi ngi ci dëkk bi boo ragalee feebar bi da ngay wo da ngay da ngay da ngay da wari comme ni ñu ko waxee ci julli julli jëm jëli dem ti jumaa ji boo ragalee nangam boo ragalee nangam wala boo nangam ak nangam est-ce que am na ci koor koor fardu aynin la nga xam ne soxlawuñu ay mbooloo yu baree baree bare comme julli jumaa di ko def pour gën ci am tuyaa ba yédé far koor yow la sa bameer la yow ak sa borom yéen yéen a ko fekk euh, mu nekk mbir mu sàkkare boo xam ne suñu borom dafa ne asoomu li waana aj bii bii kon fatwa bi moom yaakaar naa ne kenn du ci ànd ak moom xam naa su ma paree naa topp temps léegi ba xam am na ci borom xam-xam yi comme que xul daal xaq ay borom xam-xam rek fi nekk du ñàkk am ñoo xam ne dinañ défendre cause bi. bi ci topp mooy waxuma la comme que moom xel lay jéem a indi waa léegi suñu mbokk yi nga xam ne suñu mbokk chrétiens yi ñoom de wóor nañ fi boo waree fi ba def fi seen affaire yooyu ba mu jeex te déggoo déggoo leen benn coow. waaw léegi ñun daal ñun jullit ñi daal ñun daal ñun ñoo yëpp suñu diine ji daal ba naan waaw mën nañu mën na pourtant naa nekk mën nañoo jël suñu koor gi daal ñàkkal ko fay noonu daal moom bazaaru koor bi noonu daal mu dem noonu léegi ñun suñu chrétiens yi nga xam ne ñoom war nañ ci dégguñ seen coow wari nañ ci dégguñ seen coow te ci pourtant corona bi ci seen biir koor lañ la leen fekk ñu ñu woor seen woor normal dara dérangé wu lañ ci seen koor ba wari nañ foofu amuñ benn coow déggoo benn bruit waa léegi bu dee jullit nag moom non waaw ah, bu dee Sénégal nag moom non ñoom moom il faut ñu wax moom jullit ñi ça veut dire que il faut mu am ay borom xam yoo xam ne. dafa mel ne dañ leen di xattal rek pour ñu wax rek pour yàqal nit ñi seen liggéey rek waaw pour yàqal nit ñi seen concentration rek waaw liñ ci bëggoon nag am na ko mooy mooy Sénégal yëpp ñëpp di wax si moom fi mu toll nii site internet léegi yëpp fi mu toll ñu commencé ko invité léegi ñu invité ko si télé yi may moo tuuti rek fii ak semaine bii wala semaine bi sopp di ngeen gis ñu invité ko si télé yi waaw parce que li muy dépendre ni am na ñoo xam ne arrangé na leen waaw waaw waaye allahul musta'an bo allahul musta'an euh, ni ko suñu borom waxee rek wax dëgg yàlla bu ñu ko toppee woon noonu dañuy noppalu waaw man kaana minkum mariidan ala safarin c'est-à-dire que comme que mën nañ la indi la yeneen xadis mën nañ la indi la yeneen aaya waaye comme que aaya boobu ca ngay langaama rek waaye aaya boobu doo indi benn borom xam-xam bu la défendre ci lii ngay wax waaw doo ko indi doo ko indi doo ko indi allahul mustaan waaw yàlla na suñu borom dimbali euh, gis-gis bii nga nekk yàlla na suñu borom dimbali nga génn ci waaw nga génn ci wax dëgg yàlla ànd ak ànd ak mbooloo mi ci ci ci gis-gis bi nga xam ne moom mooy gis-gis gis-gis bu dëgër bi ah, waaw waaw dëgg yàlla yàlla na suñu borom taxaw yàlla na suñu borom xam-xam yàlla na suñu borom taxaw suñu tamit suñu borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi fi ci kër gi ñu nekk ci àdduna bi nekk Sénégal bi yàlla na suñu borom taxaw te musal ñu ci mbas mi nga xam ne moom moo fi wàcc salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah waxul jàllaa xoo sooxal baatu lin al baasa kaara saxuqaa man moo doon moo lay afi maa ngi leen di siyaare siyaare suñ rawaan gasa bi waa li nga wax ci waa ji rek moom la de li nga wax ci waa ji moom la de waaye bëgg nit ñuy dégg ko yooyu la waaye lii moom li ma ci jot a dégg ci moom daanaka tegul na waaye daa xamul ne fii moom waxul jaalaaku la même masala mooy jàng sax lu mu wér wér te bu ñu xamul téere ba sax duñ ko jël waxuma laak loo xam ne da ngay sa bopp masala moo jàng mu wér ñu xam ko waaye fàtte nga téere ba nga ko jël sax kenn ko jël waxuma ak loolu xamul ne xanaa fii waxul jaalaaku la ama mu ciy ñëw li ko Souleymane Badiane wax daal moom noo koy xaar ma xam noo ngi xaar tontu li ak yeneen ak yeneen nag. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi nuyu waa Waxul Jaal xaq yëpp nag di nuyu si Mbabacar Diallo gannaaw xëj yi ak ñëpp rek. waaw euh, Cheikh Souleymane gis nga sa laaj yi sa laaj yi moom dama ko war a tontu puisque am na loo xamante ni nit bu demee ba ciy wax. waratuñoo yem rek ci xool li mu wax waaye dañuy xool moom mooy kan ndax am na habilité ndax am na salaaxiyab wax ci wàll gii ak lu toll ni weeru koor ah nga di ci joxe ay ixtimaalaat mu mel ni daal dañuy foowee ponk ponk diine yi ak di jël ay daanaan da nga il faut ay ñu koy recontextualiser di wax ay aaya yoo xamante ni ak di convoquer histoire ci anam goo xamante ni ngir bëgg a saxal loo xamante ni mu sa am ci kaw suuf kan moo mus a wax ci taarix koo gun fomm kan moo mus a wax ci taarix ni yonente bi mus naa fomm eh, ay ay laa wax ne ay julli ngir ay mbas ban xalifa moo mu a génne décret fomm julli ajuma fomm julli ay mbooloo lu dul nag ay kaa yu ñuy wax yoo xam ne amoon na ci ay dëkk nga xam ne ay cas spécial la woon ñu traité ko ci anam bu spécial mais nag nga tànn ko ci àdduna bépp bëgg nu ñii ñi dañuy foog mu ay koor sax même bu ne ay médecin nangam nangam waaye wax ji mooy lan mooy laaj yooyu nga ko laaj Cheikh Souleymane Badiane na ci tontu parce que lu am solo la nee nga Sénégal dafa tuuti waaye xamante ne xamante ne kay dooleel ko ci laaju moom mii wax euh, école al di yi nekk Louga ndax mooy seen responsable waaw lool laaj boobu na ci tontu fii nag gis nga képp koo xam ni da ngay wax ci diine di ci wax n'importe quoi dana la tontoo n'importe quoi dana taxale ci say kàddu n'importe quoi puisque diine du lu ni fowe bëggu tur ca ut sa tax ngay wax ci yenn yi ngay wax ci yenn yi ci diine bëgg bës wër sa tax ngay wax yenn yi ci diine nin war a amee respect xam nga yàlla na fi ñu atiullah wa atiur rasulo ulil amri minkum an kay atiullah moo jiitu gis na bala ñoo bàyyi li ñu yàlla digal ak li ñu yonent bi digal di topp lu ñu ay médecin digal loolu faw ñu teg ko ci taabal yi nga càmbar du da génn rek di wax tay waxi falaa falaa naan bu ñu médecin ne bu leen woor bu leen woor loolu sax maanaam lan moo ko indi kenn ñan ci àdduna bi ñoo taxaw joxe ay lay scientifique que Euh, corona ak koor nangam nangam kan moo ko wax pour pourquoi ñu bëgg a indi jaral bi li ñu yóbbu ci ay werante yu amul njariñ lu tax lii buñ ko arrêté wut est-ce sax léegi corona infecté na euh, azaka infecté na koor infecté aj màkka infecté julli mbooloo julli jumaa est-ce que du infecté baatu seere yi suñu gëm yi est-ce que duñ sax léegi baatu seere ku ko wax corona mais sa laaj yooyu na ci tontu kii fiifam njàngam dëgg dëgg bu ko mën a may habilité muy wax lii muy wax ci koor ge corona lan la loolu na ci tontu <laughs> fii waa yi xamante nan de na tontu ci laaj yooyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah xul jaa alxaq ñu ngi jaare ñëpp. kilifa yi ñu fekk ci bunt bi Cheikh Mamed Thiaw naa sama kàddu nag. ci waxu Pa Ibrahima Faye bi ndax man mënaguma ko tuddee boroom xam-xam fii ak tontoogut li ko Serigne Souleymane Badiane laaj ñu door ko munoo xool naka lañ koy tuddee benn aaya rek laay fàttali mbokk jullit yi aaya boo xam ne ku nekk mën nga ci gis sa bopp baada audu billahi min ashaitan rajim ya ayuha alladina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dalla ida htadaytum ilallahi marjiukum jamia fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun muy aay bu am solo yaa ayyuha alladina amanu yéen nit ñi gëm yàlla ñi yéen jullit ñi alaykum anfusakum maanaam na ngeen jël seeni responsabilité loolu nag kilifa yi nga xam ne ñooy jàngale diine war nañ ci gis seen bopp bu baax a baax leeralal ñu ñun ñi xamul dara lan mooy lislaam naka la lislaam di doxee ñu fexe xamal ñu ko bu baax a baax laa yadurrukum man dalla idahtadaytum bu leen lor maanaam bu leen loru bu mu leen lor ki nga xam ne réer na maanaam wàcc na yoon isaxta daytum ginnaaw boo leen jubee ba pare képp koo xam ne jëlee na dégginam fële xatta xiyaasan dégginam jubut du ci nasu alquran du ci sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jubut ci benn côté kon kooku bu mu leen lor bu mu leen réeral ci seen njub googu ngeen xam ne juboon ngeen ko ba pare lu mot bàyyi xel la ilallaahi marjiukum jamia ñun ñëpp ñun ñi nga xam ne ñooy jàng ak ñi ñuy jàngal ak ñi ñuy jéem a réere ñun ñëpp ci yàlla la ñu dellu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax képp kuy wax na nga bàyyi xel ci li ngay wax ndax lan fa nabbiukum bi maa kuntum taamaloon yàlla mi nga xam ne ñun ñëpp dinañ tegalaat suñuy vidéo jëf yi nga xam ne moom lañ dem jëf te jëfu nit ki waxam ci la bokk kon képp koo xam ne yaa ngi wax ci réseaux sociaux wala fu mu mënta nekk nga ci li ngay wax di méngale lu méngoo waaye loo xam ne du ci benn côté bu mu jubee loolu nañ ko moytuloo jullit yëpp di yee itam ñi nga xam ne dañoo mel ni ma naïf képp ku wax ni am naa doctorat am naa diplôme nangam nangam nangam rek lu mu wax ñu ne kon am na fu mu ko teg gis nga dañ toll ci jamono joo xam ne mboolem luy fëy ci kaw suuf rek mboolem luy fëy ci kaw suuf laa wax ak xobi garab yi ak tissu yëpp buñ ko jëloon jël géej yi ak dex yeeg teen yépp ak ndox taw yépp daf ko daa jël garab yi ne ci kaw suuf yépp daf ko ay xalima di la ci bindal ay diplôme am na wax yoo xam ne boo ko waaye ak sa yooyu yépp la boole delloo ko ñu ko comme li mbokk doon wax boo demoon itam ci mbooleem ja fu ñu jàngee ci kaw suuf nga ñëw am na wax yoo xam ne boo ko waxoon dañ la koy bàyyee rek te xam ne waxi ku comprendre ngay wax rek macha allah ñu ngi jaar ñëpp <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulah waaw sëriñ xob xàtte yéen nag xam naa ne bu fekkee nii ngeen def moom du leen gaaw am gan nag yéen sëñ bi gan dañ koy gabele teral ko nag gunge ba mu dem <laughs> waaye gan gu ñëw rek ngeen bëggoon ak démbam ak léppam li mu wax ne falaa jaar ngeen ne na seen di firnde <laughs> ah waaw te ne rek maanaam masala bi moom wax dëgg yàlla wóote nañ ci moom rek bu ko defee itam diplôme yooyu moom. ñu jàpp li mu wax rek ba keroog ñu mën a am firnde ci ko weddi waaw yéen bu fekkee ni yen def wax dëgg yàlla mën ngeen a bañ a am gan nag comme que nee na alasar la génne jàng na génn alasar bi nekk ci sibte jàng na fee jàng am na diplôme yooyu kay wax dëgg yàlla loolu loolu nañ jàpp na am nañ ko rek ba keroog ñu gis lu war a ne amu ko laa yaakaar moo ci tade ne masala bii moom dëgg dëgg nee naa ngeen tudde ko masala mu fay masalam fayeen yi daal loolu laa bëgg ngeen di ko masala bii weeru koori daal seet nañ ko ñun mu kàllaf lañ euh, ab julit lañ seet nañu weer bi waaye nag dañoo jot ko rapport médecin bi pour mën a um masala bu daal bay ba ñu bàyyeek ko moom rek nag teewul nag moom ngeen yi nga xam ne am na ko fu ne jaar na fa def na ko <laughs> ñu bàyyi ñu bàyyi ko mu takk ko mi daay yooyu daal nañ ko bàyyi mu takk ko rek nag ndax mi daay moom du wàññi dara waa waxul jaar xaq waaye daal jëm masala bi moom nañ ko boole nañ ko boole mi daay bi yooyu rek mun naa wax dëgg yàlla man Moustapha Diop bi fi mu ne nii moom Moustapha jàmm ma si yoon weeru koor yi ñu ne xëy subay ndékk ñu ne ma tax ba damaa jotigu rapport médecin ba xam war <laughs> mën nañoo war waruñoo war <laughs> loolu daal moo xool moo xool ma ci masala bi donc loolu loolu moom waaye wax dëgg yàlla man de moom yàgg naa koo seetaan yi ma koy seetaan émission yu bëree bëri suñu moo dafay moo koy dalal wax dëgg yàlla maa ngi maa ngi fàttaliku benn émission sax mu doon wax ci maanaam affaire doomu jàll na doon doon kooku daay mel ci la défendre ne dond gi am dana am ci la bokk donc foofu laa njëkk a ramat seen mbiram beneen bi du fekkee du lu ma fàtte dafa mel ne mel ne mas naa di jotaan benn émission mu ne bind na benn téere Seydi Hadji Malick mas na mel ne itam loolu mas ko xëy na ko laaj Maodo Faye dana ci am lu ko waaye mas daa mel mas naa mas naa wax lu mel noonu li ci topp si coow coow mu wane ne moom Thiès la féete suñu Saliou maanaam bàyyi la ci moom sëriñ la ci moom di wax ay ay nu mu ko nu mu ko jigee yooyu yëpp daal man wax dëgg yàlla suñ bi fay moom dëgg dëgg man nekkul ne bi yoon laa ko njëkk a déggee moo tax wax yi moom bi mu génnee ci gémmiñam moom bett na ma lool lool lool lool nag wax dëgg yàlla xaaruma ko woon ci mu génn ci moom fataaw bi mel nii bi mu génne nii waaw ndax booba sax xam ne xam na ne maanaam bi sëñ sëñ Abdoulaye di yebal sëñ Saliou Touré Thiès te ne kon avant ngay dem Thiès naa la fusal nday daara mu yaayam moom nii ne sëñ Abdoulaye booleem sëñ Saliou Touré day xam ne ko mel na ne kon wax dëgg yàlla xëy na yi muy wax bari na ci yoo xam ne mën naa am kii lii lépp damaa ko dégg ci moom nag ci rajo yi mu koy wax moom kon ngay jàpp ne maanaam mbida mbida yi ko Souleymane Badiane di laaj nañ jàpp ne mi moom rek ba bi nga ràngal ko rek garaaw mbida yi moom moom amul solo sëriñ Moustapha Souleymane Badiane li ko ñàkk laaj de gankat bu ñëwee sa kër te miinoo ko dëgg-dëgg mu xolof dëkk ba mu dëkk te nga xam dëkk ba da nga laaj waa dëkk ba ñu mu fa xam waaw laaj ko dëkk yu dana dëkk ya su sa tontee nga xam na kon a ah, wax dëgg yàlla kii ko kon man maa ko waaw waaye moom eh, sa dëkk ba la dëkk waaye nit tim bu yor sa xam-xam loo xam ne nee na xereñee na ko da ci waxta yow li ngay dégg ak la la la xam-xam bu yundu jegewul ko ah wax dëgg yàlla yaa yéen la laaj nag yéen yéen diplôme nga am waaw diplôme yi ngay wax foo ko xamee ak ku la ko ku la ko jox yéen la na de waaw man de moom ba ma duggee lu la wax dama ne daal wax dëgg yàlla lijaas yi ñu wax daal ak xam-xam wuti nañ lool lool lool lool ah waaye nag fii waxul jaalaq la moom fii moom la fi indi lu nekk rek gaa yi ngi lay déglu ñu nga la suñ seex ne eh, xaw ban président la ko ban njiit mu ne ko xamal ne su fukki morom ñoo xam ne kii moo la mën fuuf kii moo la gën a rafet kii moo la gën a rafet soxna kii moo la ëpp moyen kii moo la ëpp xel xamal ñi ngi jiite ñëpp si biir ku jalaa ko rek la waaw maanaam Maodo buñ la jox rek ñu la ko gën a xereñee ñu ngi si biir waaw ñu la gën a xereñee ñu ngi si nga xam ne lenn loo si wax lenn lu si bokk rek pour ñu daje ko day yomb lool moo tax il faut yow mi ñu dalal nañ la xamal groupe bi mooy ban groupe ndax fi ay ponkal képp fi nekk ñu ngi lay nuyu ba di laaj waa Côte mbaa foofu yëf yi wàññeeku na bu baax. salaamaaleykum wa rahmatullah si <laughs> Moussa Mokhtar Diop maa lay ziar yow moo xam naa li ma njëkk def rek mooy ziar la ci nisfu Saxbaan bi ak bisu suñu jàmbaar yooyu di maam Thierno Ibrahima Fati. waaw di ñaan suñ borom taas mi ci barkeem waaw ñu ngi ciy ziar bu baax nag waaw si Moussa Mokhtar yow dama laa réew yi bëgg a dee wax dëgg yàlla yi ah waaye xam nga fii senegal dafa xat daal te ñëpp a xamante man li ma ci métti rek eh, bu fekkoon te ni daa toog di wax jeneen wax sax moom suñu yoon mën na cee a ñu nekk waaye nag lu dem ne nii ponkub lislaam di koor nga di ci wax loo xamante nii maanaam bu fekkoon te ni sax maanaam débat bi dafa posé wu nga mën a wax waaye dem convoqué benn débat benn boo xamante ni maanaam eh, taxawut daal waaw taxawut ba pare nga jël ay aaya yoo xamante ni maanaam kenn nit la concerné woon xam nga eh, ku am ngantal ngoo koor ndax feebar yow la concerné waaye léegi nag yow nga bëgg a aj umma bi yëpp seenu koor ci avis wu médecin yi loolu si Moussa Massar dafa metti quoi ah te ñun fa ñu jëmee leen xamul ñun dañuy fawe wóor na yàlla dañuy fawe Moussa Massar wax dëgg yàlla mbir yi daal mbir daal da koy seet ba seetaat ko xam ne doy na waar maa ngi lay waajal jaar maa ngi nuyu Fadil Ousseyn Yaxya macha allah leeral yi am na solo ñu ngi ko doon topp doon toog a jeexalaguñu ko <laughs> di nuyu waa groupe bi ñëpp di leen ziar di baalu àq nag wax dëgg yàlla. <laughs> waaw suñu ah, Oustaz Pathé xam nga li ci am ba des bay dëgg-dëgg sax mooy problème bi sax daa posé wu maanaam fii dañoo moom amagul benn problème vraiment benn koor gi ñëwagul kon li fi ñor bañ koy màcc xam ma ko li ci topp itam maanaam Sénégal wokk wokk bi ñu ginnaaw. réew bu fekkee quatorze millions lañ ñu ñu amee jàngoro fi mu la nii mu si mu téeméer ak fanweer loolu sëñ bi <laughs> bi ci topp itam wax dëgg yàlla moom daal moom dëgg-dëgg daal moom daal moom ak na ci moom ak am na ci dëgg dëgg dëgg nag ndax daal vraiment moom nëkku boo xam ne instant la ba tax maanaam nga bëgg cee ci euh, nit ñi bëree bëree bëri moom <laughs> daal li ci la jël li ci la jël lépp kenn mënu koo xam moom waaye xëy na maanaam turu maa njëkk a wax naa ko njëkkoon wax waxoon naa ko nangam ak nangam rek la waaye dëgg-dëgg corona bi moom posé gu seta Sénégal problème problème euh, woor na moom woor ah, te maanaam woor moom sëñ bi moom maanaam nii ak man sama classe bi nga xam ne ragale ni ragale koor sëñ bi maanaam boo leen ne bu leen bu woor après bu weer koor gi daal neen ko fay moom daañu am problème fay ba fi ne koor lu mu lu mu lu cooli bari naa góorgóor ba woor lépp ndax man wax dëgg yàlla fa fay koor mu yóbbu ma fay koor mu yóbbu ma moo tax léegi nag bu ñu naan su fekkee gore docteur nee nañ corona bi daal tasaaroo ci réew mi xamuñu kum dal xamuñu kum dal lekk bu ñu woor su koor gi jàllee ñu fay man de loolu bu ci bu ñu duggee bu koor gi jàllee jëpp may danaa ko mën a fay ah man naa ko fàtte sax nag koor moom dëgg dëgg du ma ci jàmbaar koor wax dëgg yàlla du ma ci jàmbaar <laughs> waaw euh, maa la asaf nag xam naa Euh, mbokk mi day mel ni dem na waaye man euh, at mii mu wax ne quatre-vingt-quinze ci université Inde ay deux cent nangam savant boole woon na ko ci ñu war a dalal léegi man ma bëggoon koo laaj moom est-ce que quatre-vingt-quinze fekk na moom sahaada sanawiya maanaam bac moom quatre-vingt-quinze est na mu am bac ban koy invité ci ay université euh, Inde moom ak ay deux cent nangam sama borom xam-xam waaye daal xam naa li ma tax xam mooy diine moom kenn du ko fowe gis nga suñ xoor gi eh, nit mënta muusaka muccet wala nga fatwa fatwa wala ngay nekk soit disant ousag fa ak aj eh, koor moom ñu annulé ko ndax corona waaw loolu moom médecin benn médecin ci àdduna amul maqaamam waaw moom benn mufti wala imaam koo man di doon ku mën a annulé nit ñi koor gi amul koor na ko am ngànt yow yaa am ngànt waaye umma bi yëpp mënuñoo maasee am ngànt ndax corona mun fontoon nit ñi waaw fii nekk kenn deful ay attaque personnelle parce que képp ku laaj diine moom daan la attaqué mooy ku jug di fooy diine puisque médecin yi du nangu ko fooy seen métier magistrat yi noonu avocat noonu euh, Euh, transitaires yi noonu maanaam corps de métier bu nekk nanguwoo ko fowee la nga nekk kon diine ji waruñoo nangu ko koy fowee waaw puisque boo waxee ni quatre-vingt-quinze eh, yow ak ay deux cent xaw ma trente lan eh, borom xam-xam ñu ngi doon université Inde te yow xanaa kon de teel lan laa invité yow quatre-vingt man Thiès Thiès gi ma xam Thiès ñu fa njëkk a quatre-vingt-treize la te moom yi bokk ci fawju awal bi man ñi bokkoon ci fawju awal bi xam naa leen fawju saani ba est-ce que ca la bokk fawju saalis ba 93 kon yow 95 déjà bu fekkee ca nga am bac wala amagoo bac ñu ñu lay invité université eh, eh, yu Inde ak yu ma la mën ta wax xam nga usurpation de fonction dafa baaxut bu fekkee da nga koy def sax yow la concerne waaye bu fekkee da nga ci bëgg a sukkandiku nag naan da ngay fatwa puisque kii lim def fatwa fa fatwa mooy génne atte boom bi kenn musula ci jiitu waaw mooy nga annulé nit ñi koor wala nga aj koor gi ajatoo ko ci ñett yeen xamoon hmm? euh, maanaam euh, Saabaan mat wala ñu gis weer euh, ñaar ñett yu ko gis wala mbooloo mu ko gis léegi ñu koy aj ci avis bu bu médecin yi nga bëgg a génne charte bu bees boobu waaye ñu fontoo xam naa di wax rek nag léegi léegi léegi doomu aadama lu bëggut lu ne warut di ko wax ndax albalaa u muwakkilu bi mantiq ndax làmmiñ balaa la ndax jamono yële nga xam ne ngelaw li dafay jaar ñu xëy suba ku ne di takki masque ma ne ah gars yi ñu ngi fooye loo Sénégal ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi prévenir loo xamante ni ay bu ñëwee ci ñoom yàggul dara rek ñu ne corona bi dugg na ci réew mi am na kum dal benn français bu ko fi andi gis nga waaw léegi fi mu ne nii dem nañoo dem a dem ba daanaka mën naa wax ne mi ngi commencé wasaaroo ci dëkk bi loolu na def nag jamono yooyu bala ñoo wax ñi nga naan nañ tëj jumaa yi nañ tëj daara yi nañ tëj nii avant après finalement mujj nañ tëj koor gi ñëwagul ñuy wax rapporté koor ah loolu musiba la yàlla buñ fa yenk ci bu jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa fondement bi dafa reelu nag reelu nag lool lool lool lool lool ñu ngi siyaar baax Cheikh waaw di ko nuyu baax di leen nuyu yéen ñëpp nag yéen ñëpp ñu ngi leen di siyaar macha allah di kontaan ci taaliqaat yi ngeen ci def am na solo waaw lislaam daal wax dëgg yàlla ah waruñoo nangu ku koy fayee comme ni seqat fa kësey wax waaw loolu la am na ci loo xam ne daal ñun waruñu ko wax sax ndax yegg gu ci foofu te yàlla buñ fa yegg waaw jërëjëf kii asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar mbokk yi ñu ngi fii ci direction générale bu Institut Al Azhar ci njiital Serigne Saliou Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Mourtada di directeur général mboolem Institut Al Azhar ñi nekk ci réew mi ak réew mbokk yi dafa information boo xam ne ni ku ñuy wax Ibrahima Faye lañ ñu wax ne nee na noonu la tudd wax ne dafa jóge Maroc jàngi ba ñëw moom mooy coordonnateuru institut Al Azhar ak université Cheikh Ahmad Bamba dem na tubaatul dajale fay jàngalekat gëmloo leen ne moom Ibrahima Faye mooy coordonnateuru institut Al Azhar ak université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu yooyu nag lañ ñëw fii ci direction générale bi jokkoo ak kii di Serigne Saliou Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Mourtada bu daaneel ay kàddoom it ñu jokkoo ak Serigne Moustapha Diop un des doyens de l'Institut Al-Azhar lii lañ ñu tontu. salaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ñooy seetaan ICAP ak leen déglu yëpp di am itam ci leeral tuuti ci lu ñuy siiwal. ndax dañoo dégg ñu ne am na ku ñuy wax Ibrahima Faye di wër ci tuubaatul ak di ko wër di wane ne moom de soogu ñibbi si jóge Maroc mu jox koo liggéey bi aji foofu mu nekk coordinateur bi nga xam ne ne loolu moom du lu wér ndax Azhar ni muy doxee ay centre lañu am ak i annexe centre bu nekk nag ka fa nekk lépp lu aju ci département ba mooy toppatoo école yi aju ci loola moo tax bu dee ci département Thiès am yaakaar naa Touba ci lay bokk sëriñ bu Bousso moom mooy ki nga xam ne mooy toppatoo école yi nekk foofu luñ ko luñ lu mu ca doxul rek keneen ku ñëw ne moom moom lañ sant la xamal ne kuy waxi waxi waxi boppam la waaye nii la doxe ñoom ndel moom ay diplôme jëriwu ko fii moom xam naa ne mën naa doon dégg naa ne daana jàng fekk Ibrahima Faye moo ko tegle de dégg naa daana jàng ci Al Azhar waaye foog mën am na fi sori na fi xam naa ko bari yëngatu na ak yëf na waaye nag taxut loolu moom mu jële ko ci azar wala dara xëy na feneen la koy jële loolu daal mooy liñ ci xam kon loolu dañ bëggoon a leeral ci loolu di sant ñëpp asalaamaaleykum xam naa di leeral ci xibaar boobu ñu dégg rek ñu xibaaru Ibrahima Faye mi dem tubaatul dajale personnel ba wax ne mooy coordonnateur institut Al foofa ak université bi li ma xam moom ci institut Al Azhar bi ni ko sëriñ bi waxee Ibrahima Faye liggéeyal ak noonu bokk suñ personnel yóbbu nañ ko tam foofu wax dëgg yàlla foofu ñu ko dénk bu Boussa mu nekk Thiès lépp luy dox ci école ci région de Thiès moom lañ ko dénk moom nag am na ay jaww ñam am na jaww ju nekk Tuwaatul am na ku nekk Xombal muy Asmati Sow am na neen waaye Ibrahima Faye daal wax dëgg yàlla moom liggéeyu ci institut Al Azhar euh, xam nañ ko nag euh, bu dee mi ñu ko teg laa ni suñ bi xam nañ ko am na moom xam di yàgg bi yàgg yàgg am naa fa mu jàng gannaaw foofu nag yëguma ko te xawma ko nag wax dëgg yàlla waaye daal nun daal sequñu ak moom ab liggéey wax yàlla na ko ñëpp xame noonu non mësta liggéey ci nun ak ci affaire gi man bu ma ci nekkee ak léegi gisuma ko mu fi liggéey jàng na fa nag ca Thiès bu yàggoon waaye itam taxul ma fa ay diplôme mu xaw a kawe wax dëgg yàlla xëy na xëy na nag mën naa am jàng na suñu réew waaye yëguma ko mën naa am loolu yàlla rek xam déedéet déedéet déedéet de coordonnateur nekkul ci personnel bi kenn ko kon mbokk yi leer na wér na ne kii di wax ne Ibrahima Faye la tudd mooy coordonnateur u institut Al Azhar du dëgg université Cheikh Bamba waxaale ko diplôme yi muy wax ne fii la ko amee it wérul li ñu xam ci moom mës na fi jànge ci ay jamono un kon nii institut Al Azhar di doxe dégg ngeen Serigne Saliou li mu ci wax responsable ba ca région boobu Serigne Fallou Bousso la mooy centre yi kon kii di ñuy tuddee kii nag Ibrahima Faye la tudd ne institut Al Azhar wala université Cheikh Ahmad Bamba fa la amee ay lijaasam ba dem Maroc ñëw ñu def ko coordonnateur direction générale bi nee nañ li muy wax wérul kon nag képp ku ñu ñëw ci yow ne Ibrahima Faye mooy coordonnateur wala lii la wala laa la ci université Cheikh Ahmad Bamba xamal ne du dëgg te it bu wéyee bu wéyelee li muy def lu ko ci fekk lu mu ci góobee na ko gar kon kooku di Ibrahima Faye nekku fi tey nekku fi ëllëg mësu fee nekk mësu fee am benn responsabilité amu fi diplôme yooyu muy wax ne fii la ko amee ci Institut Al ak ci université Cheikh Ahmadou Bamba bismillahi arrahmani irrahim mbokki waqul jaa wa zahaqa albaatil asalaamu aleykum wa wa barakaatu mu mel ni Serigne Ibrahima Faye miñ dalaloon bii biñ dégloo ojoom bu njëkk jaaruwaay yu am solo yi mu wax ne fi la jaar ci sàkku xam-xam ak diplôme yu kawe wax ne moom la gànnaayoo ci xam-xam te mustawa bi muy waxee sorewante ak loolu lool ndax kat ku wax rek day dal di feeñ ni ko wolof di waxee looloo taxoon biñ dégloo tuuti ci waxtaanam mu présenté boppam ci anam googu ñu laaj ko mu firndeel dëggal li muy wax ndax kat mbokk yi bu leen fàtt ne képp kuy wax ci xam-xam wala ngay bind ci xam-xam xam-xamu diine dañoo war a xam yow yaay kan inna hada al am man fanduru amman taxfiduuna diinakum xam-xam bu ne nit mën na caa wax nga jariñu ca donte sax du ab jullit donte laneen la moo xam lu mu doon waaye xam-xamu diine dafa am ci nuñ koy jële waaye du càgge ne ku yëkkati sa xalima bind wala nga ubbi sa gémmiñ wax war nañoo jëlee ci yow diine looloo waral bu ngeen seetloo téere yi jàngale diine ba ci yeneen fànn yi sax yu bari ca njëlbeenu téere ba dañuy njëkk persante wu xamle seen bopp yow miy jàng yow mi yittewoo xam-xam nga mën a gëstu xam ndax kii ku ñu war a jële jële la ci moom wala du ku ñuy jëlee ci moom téere booy jàng xaaliban rek muy jàngale diine da danga xam kii moom mooy kan looloo taxoon ñuy laaj sëñ Ibrahima Faye mu dëggal loolu muy wax mu mel ni biñ ko ko laajee nag génn na groupe bi dem na boobu ba léegi ñëwaatul ànd loolu ñu ko doon laajit gannaaw ba mu tuddee al azhar Thiès ak euh, bourse yam am ak réewu Égypte yim dem ak te ni ñu ko waxee woon Sénégal day réew mu ndaw genn umpante gi xaju fi rawat na kuy woote yenn wàccuwaay yu kawe yi euh, moom de yàlla dogal na ña ko doon jàngal al azhar Thiès ba nam fa jóge bu ma juumul 1997 ak ñenn ca ñam bokk loon classe boobu nga xam ne fa la mujj jàngee wax dëgg yàlla xam nañ leen euh, Égypte gi muy waxit li wér mooy ñetti weer la fa def ñetti weer la fa def bokkoon ci benn dawra dawratu takwinil ayimma xëy na loolu la sukkandikoo di woote diplôme yu kawe yi muy woote yëpp ci azhar ak umul qura fànn yu wuute yi muy wax waaye mbokk mi wax na ci biir wax ji ndëggul tànk lu kawe kawe ci luxa arabiya ba àgg ci liggéey shara ibnu aqil muy charxu alfiya ibnu malik bu am solo boobu loolu li muy tegtale mooy moom euh, ma nga ca jéegu ya gën a kawee ci fànn bi te ndeysaan bu ñu dégloo waxam baati arab yi muy tudd léeg-léeg sax day da cee am jafe-jafe bu mag doy na ma ci misaal rek baat bi ñuy wax ak a waxaat alxujru saxi alxujru saxi boobu muy wax nga xam ne ñaari baat la ndeysaan waaye ñaari yàq la ci yàq ndax bu ci ne rek na mu koy waxee wax dëgg yàlla du noonu ci koo xam ne nee na xam-xamam ci luxa arabiya foofu la tollu ba sañ a tiim téere bu toll ni ibnu aqim saraam ci alfiya ibnu malik mu di ci am lu mu gëstoo ko jàngat di ko bind mbokk yi bu ngeen xoolee vidéo bi da ngeen gis ne sëriñ ibrahima fay demoon na ci dëkk yooyu di wax ne moom mooy munasiq mooy coordinateur ci al azhar ak université cheikh ahmadou bàmba bu al azhar waaye gis ngeen kilifa yooyu nga xam ne liggéey boobu ci seen loxo la nekk ba lu ca waay doon ñoom ñoo la ko def euh, ñu ngi doon di doyadil ak di weddi wax am jooju te loolu lu tuuti la ci jaraayim yi nga xam ne sëñ Ibrahima Fay mii dana koy def wax nañ ne mas naa dem ci dëkk ci benn capitalu région ci réew mi wax fa ne moom dañ ko faa yebal mu nekk fa mumassilul xalifatul am lil muridiya loolu ay at la ca gannaaw ba coow xawoon ko cee topp waaye ku fàttaliku biir bu yàggul dara yaakaar naa ne ëppagul ñetti at ndem mat na ko coow li ngeen doon dégg cees lobi bu taxawoon nas seeni pexe ngir bëgg def lu kenn xamul moom mi ku ci taq répp la ku ci taq la ci loxoom ak ci làmmiñam ba coow yooyee ña ko mujjee nit ñi gàddu seeni xeer ak seeni yet dem buntu këram bëgg koo lakk ak yu ni mel euh, moom mii la woon ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sax day nekk fii di ko wax amul njariñ amulul ñu njariñ amulu ko njariñ dafa fekk ne dañoo jubloo laabire comme fexe na ba mu ngi wax ci turu diine nit ñi di ko déglu am ñuy bàyyi xel li muy wax faw ñu xam kii di wax mooy kan ndax kuñ war a déglu la ci masala mu toll ni bëgg a fommuloo àdduna weeru koor bëgg ñëpp sëgg bàyyi weeru koor yi mu jàll kenn du ko woor ngir làqatoo mbas mi nga xam ne mooy lëmbe àdduna mbokk yi loolu lu doy waar la waaye sëñ Ibrahima Faye yaakaar naa ne bu jógee ci lii rafleel gii mu rafleel boppam rafleel gii mu rafleel boppam ci kanam àdduna ba nit ñi di xam ci moom loo xam ne mënoon nañ koo bañ a xam mënoon nañoo dund ba jugee bi te duñ ko xam te duñu wàññi dara euh, kenn tooñu ko waaye moom moo tooñ boppam ndax ku jàpp ne diine ji mooy kumba amul ndey ba njombe wu ne sañ nga ko cee wax lu la neex ñeme nga ko woote ci diine ah dëgg dëgg da ngaa yëgul ne inna lil bayti rabban yaxmi diine ji am na borom te borom moo koy aaral boppam waaye sëñ Ibrahima Faye mii war a jàng ne woote woote bëri na ci réew mi lool la ca gën a diis gën caa métti nag mooy woote xam-xam woote xam-xam moom sëñ Ibrahima du lu yomb wallahi am na ku doon woote xam-xam am ku ko laabiré ne ko beneen yoon da ngay woote wilaaya wala leneen waaye xam-xam boo ko fi woote loola toroxal day yomb lool sëñ Ibrahima Faye diplôme yi nuy wax ak jaarowaay yi muy wax ak ak yi nga xam ne nit ñaa ngi koy tudd di ko ci tudd dëgg-dëgg euh, ku ràññee am ak xam tuuti ci diine boo ko dégloo mu wax nga xam li muy wax ba noppi euh, mu ràngoo lim ràngoo ci ay grade ak diplôme yëpp da nga jaaxle lool danga nga laajte fan la jëlee diplôme yu kawe yi muy wax ni